pexew procureur de la république mi bëggoon Khalifa Sall tey demoon fanaani ndungu siin mujjewul antu gannaaw giñ ko convoqué 15h30 Khalifa Sall daal dina yegg si tribunal wu ndakaaru bobo ñetti waxtu weesu na lu mat fanweeri minute ca gannaaw sa la ay avocat am daal di dugg gisee ak juge d'instruction bi ñaan ko gannaaw benn waxtaanee ak seen client bàyyi ndigal ndiku la amee tey juge bi nee na ko na dem ba dellu ci suba incha allah bu ko defee Khalifa Sall ñu daal di ko convoqué waat bu 16h jotee. gannaaw bu ñu fa jógee ki nga xam ne moo di meeru ndakaaru te tey ñu koy xoxatal di ko menacé ndax dañ ko war a yóbbu tribunal ndax nee nañu ay luubal yi mu def ci mairie bu dakaar daan na dellu ci béréb bu liggéeyukaayam be mu mairie bu Dakar lii la wax ak askan wi.

wax nañu lan moy réquisitoire procureur mais ñun ñëpp li ñu xam mooy annexe su procureur moy yenn taskati xibar yenn journaux ñun bala ñoo dem nous ku nekk ci ñun dina xam lan lay xaar parce que les journaux yi nga xam depuis le début de cette cabale nous porté la parole de l'État du gouvernement et du parquet de nous informer ci lan nous ñuy moi que ni le procureur a chargé la barque defatul justice des politiques li ñu bëgg te ñun ñëpp kenn réeréwu ko mbir mooy lii nga xam ni moom sumba muy dugg ci langue politique xex ngir politique bi liñu ñu moy arrêté ko loolu nag dootul justice loolu nag dootul droit te mbéjum kanam nag boroom moo koy fajal boppam dama bëgg wax waa Dakar ak waa Sénégal ni ñii ñu jàkkaar lool dañuy politique bon na gaañi léegi nañu politique xeex xeex la na nit ñi jàppal na nit ñi génn na nit ñi occupé mbedd mi na nit ñi occupé rajo yi nañu xeex nañu xeex na saf-sap parce que nag bi ma gisee li ñu bind malgré li ñu expliquer dimanche pour wane ni li nga xamni mom moom la ñuy wax dara ci ak deug lii li mu wane mooy ñii dañu tëral seen plan te suñu jogul suñu xexul suñ ci taxawul seen plan dana antu te waruñu ko nangu parce que munoo procureur def conférence de presse vendredi samedi ñu convoqué ñu lundi ñu bëgg placer nit ñi sous mandat de dépôt

ñëpp bis ni ki tey ku nekk na nga jël sa responsabilité parce que xex jot na su xeex jotee nag kenn du la mbéj nga di ko jox sa benen lex da nga fayu c'est ce que je voulais dire suñu avocats yi ñoo demandé report suba 16 heures lañ ñu woo daañu dellu mais nag léegi moom ku nekk rek leur fait responsabilité je vous remercie